ay ca tout droit spécial ndogu ah si Mbayang Loum waaw waaw ñëw nag fas yéene dëgmal fii ndogu bi rëy ñëw bette ki nga xam ne nag moom mooy Mbayang Loum ak troupam ah ñu rek en radiation jële ma yaay booy bi mu ci concombre ak lan ma ne yaa ngi ci concombre ak ah ndogu bi tey daa mel ni dina riche de ngeen fas yéene woo amateur ñu ñëw ngeen ndogu ngeen fas yéene tëral amateur yi quoi yow yaa tudd naka. Aïcha Ndiaye Aïcha Ndiaye tout droit. Serigne Laye président Amady Laye woo na ma tey suba si de. Aïcha kooku mooy Ndeye Ndiaye borom Jilaas ak sama chéri bi. waaw. Ndeye Ndeye Ndiaye Jilaas nga jóge wala nu mu fa demee. ah Yoof. bàyyi sama ci ndogu bi mais daa mel ni mais mais sa ndogu mu ngi fi. wallaahi allah. yaay booy. Mbaye kii mooy kan. Fatou Mbissane Fatou Mbissane Fatou Mbissane. ah. Fatou yaa ci concombre bi de ah. mais boo waaw waaw. am na jàpp bu a ngi woy de. waaw mais Loum initiative bi fan la jógee. ah. ah ki mooy Khoudia Loum. rakk yoo ah. <laughs> lan ngay wax ci bés bi. bés bi ah. naa kontaan rek waral nag ma jógee ba mbuur ne bés bi moom du ko rate ndax wax dëgg fa yàlla te di suñu mag nag di suñu papa di suñu yaay lekkul dara bàyyiwuñu bu solee dañuy solu bu tamit mhm. nun dal suñuy doom suñuy yor ñu allah di ñaanal yàlla rek guddal fanam biiral doom daal bu xale njabootam di ko fu ne man daal la di ma koy ñaanal sama sama xol maa ngi koy ñaan mais mooy loolu daal amuñu fayam mais Absa yow foo féetee Absa Absa foo féetee Absa <laughs> Absa Absa foo féetee. ah moom moom moom moo yor caabi waaj bi ah. ah ci mboq bi dem ci loxo bi. tout droit. waaw verre yi na yëg tuuti verre yi waaw mais Loum. waaw vraiment initiative yi dafa doon loo xam ne dafa rafet lool. ñu gis ne da koy def chaque année. mais ngeen jàppoo ci bés boo xam ne nag vraiment dina tax ñu képp koo xam ne amoon jot rek di mën a ñëw mais initiative bi ak xalaat bi mbayam fu mu jógee ci fan si la wala ji yooyu yooyu yaa ma la sa bopp wa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk internet yi ziyaare waa képp ku ak axlu lamb bi nga xam ne fu laay si loolu laa yëngu initiative bi nag man maa ko sama bopp di koy defal fans euh, di koy defal samay àndandoo di koy defal ndax lii amul fans kese képp koo xam ne tombé nga ko rek wala tombé woo ko sax ñun ñëpp lañu si woo parce que ñun ñëpp ñu bëgg waaw ñëpp ñu bëgg nag li may a dama koy wax rek te yàlla tax xooluñu ku ñu bañ xooluñu leneen bu ñu amoon sax noon noonu buñ ko doon ràññee sax ñu dem woowi suñuy noonu ñëw di koy fekkee mu doon lu rafet ah, asema nag xooluñu sax loolu mhm. jàmm rek parce que nga nekk ak say fan si club weeru koor bu jotee ñu xool xaalis bu bëri defal la ko suukaru koor ah mu rafet rek ngay mhm. ànd ak ay nit aussi ñu lay defal lu nekk mhm. ma ne pourquoi mun ma di def ndogu di leen koy terale noonu la demee te fas yéene naa bu ma koy am mhm. xaw ma nag bu ma ko amulee mais fekk maa ngi koy am bu neexee yàlla dinaa koy def waaw te ba pare. ñu si bari nag muy am presque sax ak ay sponsor laay wax. waaw ndax da am si jàpp nag. Mhm. waaw Pape Sène sama borom kër da si jàpp bu baa Pape Sène te samay fans yu bëri aussi ba si ay ñoom Mariatu kenn nekk fee si di defar. day jaay defar akara yi. di defar akara bi waa Sokone la. waaw Sokone la jógee ba ndax ndoguli kese. di siy def ay daay ñëw di jënd ay ñebeem defar ay akara def lépp tuur lépp lu gars yi bëgg moom itam gisoo mu nii lépp lu bëgg rek moom itamit lépp lu ma nekk daal da siy jàpp nga ñoom ab saa ngi nii ab sa moom kenn dootu ko wax loolu nekkatul ay wax doom la si kër gi kii Aysa Njaay waa Njafe la mooy jabaru laay prési sama doom la Serigne Laye John téeri ngoor bu mbasis fan yii lañ ko takk nag mu neele ma bokk. <laughs> aywaay yaa ngi gis. dëgg xam nga loolu dara fayu ko. mukk kon aw benn ma leen rek weeru mhm. nga dajale li ma am. ñeneen bi. olal arfak nokkur jàpp na si de. ah cent mille ma yóbbante. <laughs> loolu loolu ma def si ndogu li. ndeysaan waaw ak ñeneen ak ñeneen munu munu bu ma limee rek dinaa juum mais nag. da am loo xamne bu amé rek il faut nga wax ko. mais mbay nan ngeen di donné woy yi ak koor gi instant yi ci mois de ramadan c'est vrai que yéen ngi wor wa men nan ngeen di dundé répétition yeeg wala walu lamb jé et consort la. wa répétition yi nak ñun comme dañ def groupe mom dañuy def dañuy fent rek mba ñu jox ñu rek ñu ma woy rek dugal suma groupe. Mhm. ñu liggéey ci. parce que comme whatsapp bi légui mom affaire bi daf daf ñoo yombalal da suñu liggéey. Mhm. waaw damaa def groupe jam bugum ñun ñëpp fa la ñuy nekk boo def lu nekk sa xel boo woyee rek nga dugal foofu lu la nit jox aussi nga woy rek dugal foofu ñun ñëpp déggandoo ko su tëdd rek nga si xalaat di si kii ba mu mook waaw noonu daal lañ koy dundee si wéeru koor gi ndax itam comme mooy suñu liggéey nga jaamu yàlla moo fi nekk mais buñ jaamoo yàlla ba pare dañu gëstu si li xam ne daal moo ñuy maye maye maye aar ak moom aar ak say gars yi ñu ngi ciy wax bëree bëri bëri aar aar ak say. waaw aar ak say de yombul nag ndax ne benn boor semaine bu nekk nga génn dem woy euh, loolu d'abord il faut nga am borom kër bu am euh, compréhension. Mhm. am am dégg-dégg. dégg-dégg mais borom kër boo mun a a muñ aussi. borom kër boo xam ne jaar na ci aar bi aussi bon yaakaar naa ne. waaw waaw Pape Sène moom jabalu ay mbir sax moom moom moom ay mbir de vraiment. Euh, Baye Fall la. Baye Fall la kooku. moom assurance. Baye Fall Baye Fall la Baye Fall bu baax sax. dan ko yàlla la fay càpp. métti na daal méttiwul. Ah, ah. waaw ku la comprendre daal méttiwul. mais boo ko tasee boo taseeg na parce que ñëpp yemuñu aussi. comprendre la maanaam ñi ngay àndal comprendre. pour leçon leçon pour ñi ngay àndal. mooy loolu. waaw leçon may àndal waaw ku si yàlla mooy borom kër daal waxtaan rek gis nga say waxtaan la rek waxtaan buy am réeroo du am mais boo dul waxtaan rek sa borom kër xamul lu la sa borom kër xam nga foofu moom comprendre du mu fa du fa mos a am mais bu la comprendre xam li nga bëgg xam li nga bañ nga xam li mu bëgg xam li mu bañ rek day yomb ndax say moom no jafewul de hmm, jafewul moom vraiment bu ngeen di waxtaan daal juboo day am rek kër gi mel ni lem Pape ñeme na koor wala ñemewul koor parce que mbër mbër affaire mbër yi ñeme koor de ah, Pape ñeme na koor de ah, waaw ñeme na koor de ñeme na ko de Pape rek la ñeme yow ah, ak kon nag loolu ndax ñeme na koor ñeme na njaboot ñeme na leneen ak leneen daal Okoy, as the rice put.